donc euh, si je rappelle on peut excuser ma voix parce que je suis rentrée très <laughs> fatiguée jóge ci neige bi ñëw fekk fii beneen climat donc c'est pas évident euh, waa ñibbi si nañu avant-hier soir euh, voilà euh, am na groupe buy ñëw tey voilà donc euh, 2009 bi ñu ñëwee dañoo fekk handball nekk sous le coup d'une amende de la confédération africaine de mhm. handball mhm. pourquoi parce que les moyens n'étaient pas en place le Sénégal s'engage deux trois jours après le Sénégal se désengage comme nu ko Yatma waxee mhm. euh, l'argent c'est le nerf de la guerre il faut ñu jël équipe di leen yóbbu ñuy participer au moins à des compétitions internationales mm. Mm. Mm. on peut pas envoyer la participation du Sénégal deux semaines après on nous appelle pour nous dire que waaw moyen amul dara amul donte ñi fi nekkoon waaw c'est ça justement donte président bi fi njëkkoon nekk doon na def ay propres moyens am mais am na si moment boo xam ni boo si nekkee doo mën a ci dem sinon il faut enlever le pain de la de tes enfants pour aucune compétition internationale donc euh, quand nous sommes arrivés en 2009 objectif bi lenn dong la woon mooy remettre le handball sénégalais sur les rails du handball africain mhm. na bokk na bokk fépp fu ñuy tudd handball Sénégal dafa war a bokk mhm. parce que potentiel bi mi ngi fii en terme de d'encadrement ah. le ressources humaines mi mhm. ngi fii et puis aussi ñu am ay xale yu mën handball yu fi nekk li ñu njëkk a def Seydou mooy dem confédération gérer amande yooyu ba confédération daf ñu ko effacer fayuñu dara dañoo xam objectif bi Sénégal jug nouvelle équipe bi ñëw lan mooy objectif ñu ni lii la le président de la confédération éponger amande boobu ñu teg bi ñu ko tegee nag on s'est dit que ce qu'il faut faire aussi si jouer un championnat national élite régulier jouer la coupe du Sénégal et euh, le tournoi de montée essayer d'organiser des olympiades parce que le handball aussi c'est un sport de masse mm-hmm. handball de masse lañ soxla mm-hmm. et puis essayer de démocratiser la discipline un peu partout donc boo ko seetee te handball quatorze régions yëpp mi ngi si et je pense que c'est la seule discipline si je ne m'abuse mu nekk ci région régions nous avons quatorze ligues donc région Sénégal yëpp boo demee am na handball loolu mu doon beneen objectif boo xam ne dañ ko war a relever ñu ñëw boole xale yi ni nañ am di organiser ay olympiade yoo xam ne day regrouper plusieurs jeunes am benn facteur boo xam ne tam benn facteur bloquant la woon pour que handball màgg développé wu ñu ràññee ko respecté ko pour que tamit euh, sponsor fekk ñu ko fi woon pour aller chercher des sponsors il faut que ñu am benn ligne de conduite Mmh. ligne de conduite bi mooy la dégg naa yaat ma wax ko léegi mooy violence bi amoon handball il fallait que mu deñ mm-hmm. et on avait Euh, suñu objectif lu nga xam ni dañ ni il faut ñu def ko dindi violence mhm. violence mënul ànd ak wut ay partenaires c'est pas possible mënul ànd jox une belle image du handball mhm. loolu lépp aussi on a su le en deux ans parce que tam on ne peut pas venir et tout euh, voilà et le problème mooy on a un bureau très solidaire lu Seydou wax moom la bureau exécutif bi wax mhm. xam naa ni loolu bokk na si lu nekk suñu chance